ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les examens virologiques suivants. Sur 195 tests réalisés, 15 sont revenus positifs. Il s'agit de 15 cas contacts suivis par nos services. 14 patients hospitalisés ont été déclarés guéris ce jour. Ils sortiront de l'hospitalisation tout à l'heure. L'état de santé des patients hospitalisés stable. À ce jour, 265 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 137 guéris, 2 décédés, 1 évacué. Par conséquent, nous avons 125 patients sous traitement dans nos, dans nos hôpitaux. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelles et collective ma lire la situation wu tey bi tey ajjuma fukki fan ci avril 2020 ministère de la santé et de l'action sociale Jodna résultat test yi ñu def ci téeméer ak juróom-ñeent fukk ak test fukk ak juróom ñoo ñëw positif bon ñoo am jàngoro bi fukk ak juróom yooyu fukk ak juróom la yoo xamante ne ay cas contact la yu ñu doon suivre ci suñuy service ñu yëgal tam ne fukk ak ñeent patient ñu xamante ne ñu ngi woon ci hôpitaux ñu leen di faj tey wér nañ bésu tey bi dañ leen génn hôpital ci bés bi ministère de la santé et de l'action sociale ñu ngi yëgal ne patients yi ñuy faj actuellement ñi ngi yëg tan ci seen yaram ñuy xayma ba mu commencé ba léegi ñaar téeméer ak juróom benn fukk ak juróomi cas lañu ñu fii ci senegal ci kaa yooyu téeméer ak fanweer ak juróom-ñaar wér nañ ci ñaar génn nañ àdduna kenn évacué nañ ko bon dëkk tey téeméer ak ñaar fukk ak juróomi patient ñoo nekk ci suñu hôpitaux yi ñu leen di ministère de la santé et de l'action sociale mi ngi demander population yi ñu respecter bu baax digal yi ñu leen di jox pour que xeex bi de Covid-19 ñu mën ko gagner nu mu avant de terminer je vais effectivement introduire notre collègue monsieur le ministre Sambassi, ministre du Travail du dialogue social et des relations avec les institutions pour une communication. Monsieur le ministre, vous avez la parole.